oui réaction bi de ñu koy indi du kenn ku gendarme yi parce que dëkkub jàmbur mënoo faa dugg na da ngay taxawal taxawal brigade amul kenn ku bañ birgat poste brigade cib dëkk mais boo koy taxawal dafa am yoon quoi mënoo ñëw ci espace su jàmbur nga ne yow da nga fiy tabax brigade te tàgguwoo monsieur le maire tàgguwoo waa dëkk bi ñëpp ñëpp man ak yow ak monsieur le maire sax mi nga xamante ni moo jiite dëkk bi essange ni nii la xëyee yem ci moom dafa dafa xëyee yem ci waaw waaw Ngor laa dëkk dafa xëy yem ci ñu koy gas nii la ci xëyee yem kan moo ci man dara léegi. état la. non non état moomu ko terrain bi ci li ñu jot a dégg ñun ci ay wax sëñ Cheikh moo ko may waa Ngor almaxtum te am na ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay doomu ay doomu Ngor waa yoo xam ne boo la laajoon la gën a leeral. noon la fa demee Ngor ko moom kon leer na ma ngeen doon nga li wax ngoro ko moom ba mu leer nañ kon gendarmerie yi maanaam li ñuy def amuñ ci benn droit man sax dama ne Almadi y a beaucoup d'espace Almadi bu doon ne brigade la nga bëgg mais espace bi yaatu na ci dëkk bi yaa xayti mu la pourquoi ñu bëgg a ñëw ba fii bëgg fee indi fitna man looloo ma yéem man xam nga ne lii injustice la xëy un bon jour rek gis ay gendarme ñëw taxaw armé wu ñëw taxaw si buntu dëkk bi nag ngoon nga xamante ne dañ ñun dèjà dañ ñu tëj oto mënu fee jaar ambulance mënu fee jaar dara mënu fee jaar tëj la ba pare léegi di jël ay gendarme di ko teg si buntu dëkk bi pour lan ñun ñu ngi wax ay terrain aéroport pare guñu dañuy neexale ay dàgg xol pa bëgguñu nañu may jàmm gis nga injustice mooy jee si dëkk bi injustice dafay yéex. maire est là maire bi ñëw na fii c'est pas un titre foncier d'état du titre foncier d'état du titre foncier d'état titre foncier ngor la léegi ñu on a deux problèmes on a un problème de lycée on a un problème de mosquée fii juma lañ fi bëgg a def mbaa lycée ñaar yooyu lañ fi soxla léegi ñoom ils avaient une poste de gendarmerie ici ñu xëy génn fa ils n'ont pas ils n'ont pas consulté les villageois xëy ñëw ne dañu fi def gendarmerie c'est pas normal ils avaient nationalisé l'aéroport On était d'accord, le Sénégal était d'accord, parce que c'était la nation qui avait besoin de cette terre-là. Ils ont dénationalisé l'aéroport, jël ay politiciens jox aéroport bi les endroits yi nga xam ne seen bàyyi ñoo fa doon bay muy waa ngor yi ñu jël leen néew leen doole. ba pare léegi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils veulent ñu bëgg ñu bëgg ñu toxal ne léegi dañuy yóbbu dagg xol ba c'est pas normal fii ce site-là nous allons construire un lycée mbaa boog une grande mosquée ñaari fii.